ah cum dama doon bëgg a jooy waaye duma ma jooy ndax ku jógee màkk du jooy ci yëfu caaxaan yi Sénégal yi sax dañuy fàtte fàttelu waaye fàtte xaju fi te ku fi fàtte sax ma fàttali la titi yaa gàtt xel titi yaa gàtt xel yow luñ la waxal yowa bi ma ñëwee ba léegi ñu may envoyé vidéo bi naan ma sa waaja sa waaja la mu defati Soun gen fate leko, bersi bou yusu bi pase, titi defna folo khamne, bin yu kheye lalande men, nyepou de nyon te konye titi moun organize, te aram nisangade, bersi bi yusu okon moun moun. Nga dem kote be gisi den fay djapole wale lou am solo, felicitasyon wale. Nga nyon fek koumba, titen kway djapole lou am jom, kon ki don bole rewmi, wak gen, kam gen, turem, <laughs> nek, atu fidem na. Rewmi nyen ki dundu djamou, mashallah, yal nasak. Koumba felicitasyon, besbe am nan solo, rewisi, yal nan lejik. titi ko ko xam-xam ne wéyli wéyli la ah xam ngeen ne titi moom miin na lii lii mu def nii titi miin na ko ah <laughs>